salaatu lazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani alaamahin maal xabsa wa safar المختار معيسنا ودى أنه رئيس الرؤساء بحدو من جناب يسى وجه نبي مقجل بر يدي هل لي تسليما منيل الأبيد لو سابت المساهب بالأصوات قد سهسه كل الدلال وعزود لم يرد الله نسيره ولا يريده والفضل ما تحولا يبس في سنتي قاتفنا كما بثت مت مدة السنين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 يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبق يدوم أعوذ بالله آمين على الذي تسره أقلامي ما توجع الأذى الباخي فلا ردين سمي واتباخي حس بمدح المصطفى محمد خير رداء مع فضل الصمد محمد mumajjadun muammalun mufaddalun mujammalun mukammalun muhammadun afdalu xalqillahi mutiihuhu huwa mutiihullahi dawaa xulubul mutaqiina albaaxi bi xayri ahli al ardi wa tibaaxi subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun شباب غيبتي أنا لا أراد أن أنال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في دومي moo tax ku màggali bésub tukkee mbaa jihoor nga añ nga umra am nga yool ba ne dogon ak dem ji wolof te kon billahi ñëpp dem niiraanu xotni ani saytaani ya jalilu wa maskani wa kullu ma awlu ya allahu ya hafizu ya shalamri ya faiqal xalqi man bil xëri nafsi wa diini summa ahli walwalad wa maskani lakka wadi atun abad wa hakaza دنياي ما أخراي ففي إما النسر برسايا واجرف عذاب النار عن جملة من بيتلقى من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن إسنا ودأبا يا سمت تولني ولا تكلني لياد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي حسن الختام عندك والتسري في الصلاة لسابا عن آله وهب لي الإجابة من خادني إلي بتكرمي سقت لو الأمد مع سكوري ولم يزل برافعي سكوري رفعني رافع بالكتاب بلا إساب وبلا عتاب لو سكوري بلا كفران وسانني بالحل والجيران يسون عن كل ياس جهاتي مغن يدي بهكذا أنادي إذا تلوت آية فرلعين لغير ذاتي ويزاد المؤين لم ينعني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تفليس أي مني اللعين والقلاق ربي بمن كتابتي تنمي علا كتابتي فاقت سيوخ تربية وكل خير وسيوخ ترخية ردت كتابتي بسن لاي لغير نأبي كل جان لاي مد لي الأكرم تيسيرا يفا لي وإبلا جاري رفيق شكري لرب كريم من كان شكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا شكرا لرب العالمين شكرا لو ما قد رجوت بي كوني شهيدا وشكرا وذكارا وجعت وجهي في شهر النبي سنادي للأكرم رافع وهاب سكارا رجوت منه تعالى لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يموح وزلت جملة عني وتسخيره leader kufara inni ukhatibu fil bahri muqtariban walam yazal jallaqa haaran wa jabbara fajatani rabbi bil ala yabliya an awada lil barri rudi به كل من بار على نبي صلبي تسليمي بالكرامة ورفع وزدني يبع در رفع يبكار sëñ Bass defal nañu ko addi borom Tuubaa ni nga ko digle woon defal nañu ko ni jërëjëf mottali rek ndigal Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Serigne Touba tey ci kaw suuf ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci ndigalam ak kàddoom lay jottalee yi ñu bëgg a wax ko ci sëriñ xam su Mbàkke sëriñ Soxay bu mi nga xam ne jataay bii lépp ci loxoom la nekk ndax daaw la ko Cheikh Sidi Mokhtar jox ndigal mu tàmbali lii yebal Cheikh Mahmoud taxa mu nekkoon jëwriñam ñëw teewal ko fi ren ci dogaloo suñu borom mu wujj suñu borom fekk Serigne Touba Cheikh Mahmoud Muntaxa wuutu ko ci jotaay bi ñëw teewal boppam kon lii kun bi kun sarmadan wa ci sa jawfal fara lil wara mistal maxaari yi kuy dàkk Serigne Touba ci màgget gi dàkke ko ci barab bii na la wóor ni sooyoo kon sant yàlla bu baax a baax di sant Serigne Hamsatu bu baax a baax ndax guddeeg bëccëg ci dund sëriñ bi rek la nekk maa ngi toog di ko xool di ko jàngat bu baax waaye mu di ma fàttali bu baax. ne sëriñ bi daa terale jànkati xasida yi ndax pëstéef ak dogu gi ci àndal ak coono bi te yëg ko kon dañ koy ñaanal bu baax a baax suñu borom yàggal ko fi lool mu yàgg taxaw liggéey ndax cër bi ko ci sëriñ Tuubaa li rëy na te yéene na ko ñëpp waaye tawfeex bu rëy la ni ko ko sëriñ bi daan seerale ndax sëriñ bi moom képp koy dàq ci xasida yi rek bunt bu gaaw gaaw la ci jëmmam ndax ku dégg bay di ñu fi jàng da nga xam ne ku suñ borom defal tawféex ba xiir la ci rek war nga sant yàlla bu baax a baax ndax mboolem li ngay bëgg da nga ko jot mboolem la danga ragal da ci mucc barab bii nag dafa sax neexut a waxee moo tax ndigal la tax waaye kon tey laa fi jëkk waxe ndax xam war mooy barab bi ak xam jëmm ju jëmmi Sëriñ Tuubaa ji ne ci suñ kanam ne ci suñ ginnaaw kon li ñu fi doon jàng muy xasaay bi nii ñu ko defe rek nañ ci gën a góor góorlu mooy di ko sellal di ci dàkk bëggug sëriñ bi di ci xeeñtu jëfi sëriñ bi ndax fii kat fu ñu mën a dàkke sëriñ bi fii ko gën a jege baatulub yoon yëpp fii la nekk kon ku yàlla defal tawféex ci ndigalu sëriñ bi rek ndax wax naa ko sëriñ bi léegi ne ko li tawféex ci rëy la ndax màggal gi yàgg naa am lool waaye xëy na suñ borom nii la ko dogale kon nag ku yàlla defal tawféex ba boole la ca loola war ngaa sant yàlla bu baax a baax sëriñ bii mi ngi sant taalibe yëpp ndax dafa joxe woon ndigal bi mu joxee ndigal sëriñ sa sëriñ bi itam joxaat ndigal taalibe yëpp ne ñëpp ni ñëw ànd si ko moom fii ubbi si ko fi waajtaayu màggal yi di safar yi ngir waajal nag bis bu tedd bi ñëw ngir xam ne lii ñu def lépp nag teddaayu lii ñëw rekk a tax ñu di ko def waaye gan gi ak séegut kon nag buñ ko waajal ba fàtte na gan gi def ak si kon na ko ñëpp xamee noonu xam naa di jaaxale foofu kàddu yi ndax ni ma ko waxee fii moom laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum loolu la ñu bañ mu dañu wa antum laa tash'urun inna allazina yaxudduuna aswaatahum inda rasulillah ulaika allazina imtaxana allahu qulubuhum littaqwa lahum maxfiratun wa ajrun azim inna allazina yunaaduunaka min waraai alxujuraat aktharuhum laa yaqiluun loolu suñ borom digaloon saxaaba yi nag taalibi Sëriñ Tuubaa du ñëw jëfe ko kon fii ñu nekk tekk rek la laaj ak teewlu jëmmi Sëriñ Tuubaa ak nekk ci xasida yi bañ koo boore dara bañ cee rax dara ngir xam ne pàgguteef bu leen Serigne Touba jagleel la beral ko sëñ bi mu jagleel ko ñëpp kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool tam ànd ak te xam ne xaside yi moom ci la Serigne Touba def mbootam neewoon na mooy ay jeexitam kuy topp ay nit ak kuy topp ay jeexitam fu nekk bu yàggee nga fekk ko fa kon nag li ñu fi jàng waxuma la dëkk bi de ndax Serigne Touba aar na ko ba noppi ci mat la bu foofu sëriñ lépp lu fi matoon ñaan ñaan na ko fi ba lu mu fi bëgg du fa tàbbi lépp lu mu fi bëggoon ñaan na ko ba suñu borom may na ko lépp nag ci ay sabab ak i waxtu lay doon ndax suñu borom wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun dara dafa yàggu ci moom waaye sëriñ Touba ñaan na suñu borom ba lépp ba suñu borom may na ko fi kon nag fii sellal ak teewlu boobu moo xam rek la laaj. kon ñu gàttal kàddu yi ndax sëriñ bi waxoon na li muy wax ba noppi dañ ko doon santal rek sëriñ Hamsatu santal ko bokk taalibe yi ko wusi di ñaan ci yàlla ci barke Sëriñ Tuubaa liñ fi jàng ci xasida yàlla na ko Sëriñ Tuubaa nangu yàlla na ñu ko Sëriñ Tuubaa dencal foo xam ne yàq àggu fa ndax xasida yi moom saa soo ko jàngee ba noppi sax la sëriñ Saliou Mbacke daa wax ne Sëriñ Tuubaa dafa am bis muy liggéeyloo taalibe yi noppi wax ak bi Ibrahima Fati ne leen wax leen ne lu ci bëgg na na ko ci fas ba caag mun la wala ngeen bàyyi ma fasa leen ndax yéen bu ngeen fasee da ngeen am lu ngeen fàtte kon nag xasida yi ku ko jàng Serigne Touba daxañ ne lépp ci biir amiin rek nga war a wax kon ñu ngi jeexal foofu kàddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mu gën fee yàgg te gën a jekku liggéey nee na ko ñëpp dimbali ci guddi tey gu barkeel gi nga xam ne am nañ ci yaakaar lool ci lépp waay ñaan suñu borom nangu sëñ Basiirum sëñ Abdou Xaadir mii na ko ñëpp ñaanalal suñu borom dëpp ko kàrsal ba liggéey bii ko borom Tuubaa di liggéeyloo mu am ci tawfiix ju rëy rëy rëy am ci kaaraange gu matale am ci ndimbalal borom Tuubaa nee na ñu ngi koy ñaan képp kuy yër xasida na nga ko dimbali ñaanal ko si mbas ab xaalis mu yàgg fi loolu te wér te suñu borom sàmm ko taal ko ak kibar ko na ñëpp tànn له في دارين أبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني شهيدا وشكرا وذكارا وجعت وجهي في شهر النبي سنادي للأكرم رافع وهاب سكارا رجوت منه تعالى لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يمحو زلات جملتها